menacé wu ma kenn. <laughs> aujourd'hui dama ne dama ne politiquement dinañ ma dinañ ma dinañ ma dinañ ma mais yow dinañ atte yow. politiquement dinañ atte yow on t'a mis dans le camp du premier ministre Amadou Ba nee nañu yow Doudou Ka <laughs> Abdoulaye Seydou Sow Pape Malick Ndour. Cheikh Omar Anne Abdou Karim Fofana. Oh, ak vous roulez pour Amadou Ba. mais yow yow yow dëggu fi woon bu mu ñëwoon fii. keroog nii sa benn yoon bu ñëwee fii dama dëggoon ni mu nag maa ngi woon si ak Ousmane Sonko dam dam xarit la damay dam koy fi dëggoon la fi ah, dëggoon nga ko non nee nañ euh, dans le listing bi listing damay wax koy jox xaalis dam koy financer parti bi tout ça dëggoon fi dëgg naa ka kay am na sëñ ñu dem ba ñu ne président mais booy bi soo ko booy bi dafay def coup d'état pour soo ma ci booy bi lu muy def ni ay vert mu indi ay ay vert au lieu de mu indi marron mouvement futi jeudi vert la Ndeye Maymuna. loolu ñu la waxoon. Maymuna c'est c'est faux. Maymuna. ma ne loolu ñu la waxoon c'est faux. depuis sànq ba léegi lan laa wax dama ne ñoom si ñoom ñii kenn ñemewul kenn ñemewu ñemewu ma woo pour ne ma jaa jàppale ma ba pare wax wax naa Sénégalais yi lu ma wax leer na nañ su léegi nag ku ku bëgg a xëy nag mu def mais par contre attention je suis ministre de la République je suis membre d'un gouvernement et j'ai un chef de gouvernement qui a tout laisser pour travailler, pour euh, exécuter une vision du président de la République. De la, de la, de Attention, mais man il faut différencier les choses li ñu bëgg parce que ñoom ñu ngi nekk si candidat ku nekk mënoon na ne teg ñu suñu liggéey tous les jours man attends su ma nekkulee ak premier ministre tous les jours ñuy ñuy euh, régler des difficultés comme ça dans mon secteur kan lay nekkal damay dem nekk di politique candidat man je suis avec le premier ministre qui de gouvernement je lui dois loyauté soutien dans l'action gouvernementale et donc bu dee ñoom loolu mooy loolu mooy da ngay ànd ak da ngay yaa ngi faral kii mais kon de suba nañ ma damay ànd parce que man président de la république moo may moo ma yar si administration moo moom laay moom mooy sama référence mooy sama mentor te moom noonu la mës doxale doxalee même bu mu nekkoon ak Ablaye Wade en période de business noonu la mës a doxalee toujours loyal toujours solidaire toujours. mais da nga bëgg a ne donc euh, les, les nombreuses entrevues avec le premier ministre. mais c'est dans le cadre du travail mais c'est mais c'est dans dans le cadre mais c'est normal que je c'est mon premier ministre c'est mon chef de gouvernement. Eh, eh. si j'ai des difficultés c'est là-bas où je vais pour qu'il arbitre. ñoom Ablaye Sow ñoom Cheikh Omar Abdou Karim Pape Malick aussi dëggul ma la wax man da nga leen di weddil wala la que da nga bëgg a ma si keneen wala si keneen est ce que dëgg nga Ablaye Sow ne man je suis je suis je suis euh, je supporte ko wax ko dëgg nga Cheikh Omar ak Ablaye nee na moom dafa tënku ci kàddu waaw président de la République wala pourquoi ñu dëggul ma la dam dama la wax sànq histoire Sonko lu ñu wax si man wax la leneen wax la leneen donc Sénégal li ñuy bind man lu ma fi wax leer na nañ ñooñu noonu ñuy essayer xool Doudou Ka fu mu nekk pour jaxasee essayer jaxasee xelu président ma Sall déedéet maam président Macky Sall lu muy def defar nañu ko pare man booy booy mi ngeen jàkkaarloo booy président Macky Sall mais